asalaamualeykum wa rahmatullahi wa sëriñ bi maa ngi la nuyu di la ziyaara di la baal xaq di la baalu xaq di sàkku ci yooyu nga baal na xaq bu baax a baax mu mel ni dañuy del siwaat ak sëriñu mag ñi fi mu yemoon ak ñun ci diwaan bi tabaarakallahu keroog mi ngi jeexaloon ak daayiratul kiraam tey nag li muy ñun nit ñi wax lu ak def lu ñu xamul wax lu seen yoon nekkul am temps ba yóbbeleen ñuy ñàkke orma cheikhul xaaj malik si radiallahu taala anhu di jaaree nag nam leen neexee mu bëgg a delloo si nit ñi delloo si seen xel na jaru ko fi fa yaa ayuha almagruru qad laiba dahru bi umrika xata faata maa yujbaru lkasru nee na yow miñ duur mi yow miñ trompé yow miñ nax jamono ngi lay fooye de <laughs> léeg-léeg nga dégg ne yow bàyyi sa xel mi ngay fooye mooy dëgg jamono nag fooye na la sa dund nag lu ci bëre paase na wii ras nga ku sore fa ngay xëyee jege fa ngay fanaan yi ku dem ba am ñeen fukki at war ngaa xam ne wii ras nga ku dem nga dem ku demul nga dem kon fexeel la ca kaw ñeen fukki at yi jëm kaw lépp na jekk lépp na rafet waaye bu nekk wax joo xam ne juy jur ngaañ la sa digganteeg sa borom fa yaa ayyuhal maghruuru hee yow mi ñu nax mi yow mu ñu war mi xad laa ba dëgg-dëgg caaxaane ne foowe na addahru jamono bi umri ci sa dund yëpp yëpp yëpp yëpp jamono ngi rek xataa faata dem ba raw na sax ba faat na ma yuj baru la nga xam ne warees na kaa jàng alkasru damm damm bu ba li passé woon ci yow ñu waroon ko jubbanti sax fi nekk ni jubbanti waat ko sax xaw na jafe ka annaka li tafriti anta muxalladun wa qad azumat min kal qabaaxi wal isru nee nag mu mel ni yow daal ci sa sàggante gi la sàggante dafa mel ni daal da nga fay sax rek tu fee génn hmm. yaa ngi nax sa bopp de bon bon yi nga nekk muur ci ba fi mu nekk nii dara garaawatul ci yow daal kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibun ka an nag mu mel ni ki yow li tafriti ñel si sàggante googu nga xam ne sàggan nga ko lool anta yow mu xalladun kuñ fi bàyyee nga kuñ fi desal nga daal kuñ fi béelal ba mel doo fi jóg wakkat azuma dëgg-dëgg màgg na alqabaa yi bon bon yi moo jikko yu ñaaw yeeg yu bon yi jëf yu bon yi min ko tukkee ci yow doomu aadama wala isra ak nuur gi nga nuur ci bàkkaar yi lànk nukki yaakaar ne rek kàttan gi du mës a jeex wala wér gi du mës a jeex wala am-am bi du mës a jeex déedéet te naa sayta man laa yam laa yansa fi mulki xardala ala saxratin raslan fa mawidakal nde nga maam xasru nee na yaa ngi fàtte fàttelu de yaa ngi fàtte fàttelu nag te ka ngay fàtte fàttelu mooy koo xam ne du fàtte ci nguuram gi lu ne aw bàkkit woo xam ne dafa nekk ci suufu xeer waaw ak lu mu tuuti tuuti rek kon defal ndànk xamal ne yow yàgg-yàgg ci kanam borom bi te naa sayte yaa ngi fàtte fàttelu man koo xam ne lam yan sa du fàtte xaar dal lu ni aw bàkkit ñaxu bàkkit woowu fil mulki ci puwaaram bii ala saxaratin bu nekkee ci suuf xeer lu tuuti tuuti wa nekk ci suufa lu tuuti tuuti rek du ko fàtte kon rasulaay teelul ak tey mooy ndànkal defal ndànk de attention faire attention mu ne nga ne ko ah si mu ne hey bàyyi la ah xam nga li may wax fa maw'iduka sa randiwu alxasru mooy pang ga mooy dekki ga dana am te da nga dekk te dañ leeral mbir yi de bul yaakaar ne dossier yi moom fii la yam dañ ko topp ba mu leer alam yaani an taqsal qulubu raqibaha wa taxsila zaadin baada ma xasxasa sayru xanaa dafa jotul nag nga ragal yàlla mi nga xam ne mooy aji fuug lu xol yi di ko si waaye guddi ak bëccëg suba ngoon cerse bu ne mi nga xam liy daw xanaa war naa mën a jot nag nga ut sëriñ ci ak yóbbal te mooy ragal yàlla def ndigalam moytu tere yi gannaaw ba nga xamee ne yaa ngi gaaw ci jëm fa nga jëm mooy li ma la waxoon rek saako boo xam ne moom tabaarakallahu bi bu set benn kilo jugee ci xam nga ne yokkul dafa wàññeeku mooy bu ñu rëddee ne fii la sa dund war a yem yaa ngay dox jem ci kon dafay gën a wàññeeku rek moo tax alam yaa ne xanaa war na mën a jot nag ta dafa jotul an tax saa ragal alqulubu xol yi raqibaha aji fuuglu xol yi wa tahdila saadin ak utal ay yóbbal baadamaa xasasa gannaaw ba nga xamee ne soññ na a asayru dox bi mooy màggat géeg wéradi géeg yépp a lay gaar war ngaa xam ne yow ku dem nga dem ku demul nga dem ma ngoog agarrakum tiibul magaani wa ahluha kama garra jiilan fi xayaatikumu dahru sëriñ yi mag ñi nee na yéen nax na leen li leen nax mooy neexu kër yi wér gi kër yi courant baa ngay dox lépp lu ci courant bi lu ñu doy courant lépp mu ngee dox ventilateur yaa ngay dox ndox mu sedd yaa ngi fi oto yaa ngi biti yaa ngi fi ba ngeen yaakaar na du ngeen fi jug de agarrakum tiibul magaani neexu kër yii waaluha ak ñoñ ñi mooy ñi ngeen fi fréquenté kama agarrakum kon war na leen kon ndax da leen a war boo afwan de ba tey rek kama garra comme naka la naxe wala nga ne comme naka la waree woon jiilan ab maas fi xayaatikum dégg nga kama garra dahru jiilan fi xayaatikum comme naka la jamono waree woon ak maas goo xam ne war na leen ci seen dundu tax na yéen watar muuna araada alkiraami jinaayatan la xat jitum nukran fa maa fawqahu nukru nekk gi ngeen fi nekk nag mu neex lool tax na léeg-léeg dere gor ñi ngeen ci sànni lu sànniwul waaw lu ngeen xam lu ñaaw lu ngeen xam lu bon lu ngeen mën ci sos yéen a ngi koy yóbbu ci réseaux sociaux yi fu ne yéen a ngi dem ci télé yi yéen a ngi dem ci rajo yi yéen a ngi dem ci pénc mi yéen a ngi dem ci grand place yi di yàq deru góor gu set wecci a ah, léegi de gis nga ko tey watar muuna te yéen a ngi sànni araadal kiraami deri góor ñi piir yéen a ngi cay sànni jinaayatan ak tooñaange ak yàq der goo xam ne wóor na li ngeen di wax du dara waaye da nga naan bala ma naa ko yàq sëriñ bi ne la xat ji itum dëgg-dëgg indi ngeen dikke ngeen nu koram lu sibu sibu fama faw koku lu ko kawe nu ko lu sibu amul lenn lu bon eh, lu bon lii ngeen lu bon lu ko féete kaw yéen wataatuna ifkan li tijaarati baynana fa fi kulli xalbin biftiraaikum jamratu yéen man daal jaaxal ngeen fu ngeen toll yéen doomu aadama yi yéen ngi indi aw duur pour du ci commerce pour sa daraja gën a yëkkatiku sa martaba sa nangam nangam sa postu mu jaral la ne nga yàq ci nit wa taatu na yéen a ngi dikkee ifkan ay duur mooy lu dëgg li tijaarati ngir yaxantu bay naa suñ diggante fa fi kulli xalbin xamal ne nekk na ci bépp xol jamratu tàkk-tàkk mer moo xam ne ak naqar woo xam ne am na ci biftiraaykum ci wax lu ngeen di wax du dëgg ngeen kay wax ci diggante jullit ñi fala baraka allahu lwusaata wa ma tawat daqilatuhum min makrihim duunahu lgadru dégg nga ko bu baax nee na fala baraka yàlla bu yàlla barkeel yàlla bu mu barkeel allahu yàlla alwusaata rambaajkat yi mooy jaxasekat yi wa ma tawat ak lépp loo xam ne taxañ na ko lam na ko daxilatuhum seen baatin min makrihim tukkee ci seen pexe yooyu nga xam ne duunahu yées na ko alxadru ay wor wa qad hadamu maa yu yubaanu bi misalin ala sharci lam yardal ilaahu wala albadru nee na ñoom ñi nga xam ne ñooy yàq deri góor ñi lu leen neex wax lu leen neex def ci pénc mi ci réseaux sociaux yi yàq nit yàq nit ba bu jubee ci nit kenn du ko mën a xool tam wóor na ngay wax dara du ci dëgg Seydou Cheikhul Xawmi nee na ñooñu la ñu yàq loolu làmmiñ sax mënu kaa leeral yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko waqat hadamu mabbu nañu maa loo xam ne laa yu baanu mënee su kaa leeral bi misalin ci aw làmmiñ kat làmmiñ mu mënu kaa tudd ba jeexal ko ala sharci sharia bi lam yarda te gërëmul al ilahu yàlla wala al badru ci caage nag rasulullahi tax ñoom ñu waxe nam leen neexe defe nam leen neexe waaye loolu du ko tax a sotti wa saaru ala tankiisi ma sheyqu mubrimun bihi wa kasartum ma yaud bihi ljabru nee na ñoom daal mujj nañu lépp loo xam ne cheikhul xaaj malik rabbe woon na ko teg ci taalibe yi teg ci njaboot gi fexe nañ ñoom ba firi la cheikhul xaaj malik rabboon yéen daal li ngeen fi yàq li ngeen fi toj caaxaan di furu ko de li ngeen fi wax ngeen fi weng de wasaaru mujj nañu ñoom ñooñu ala tankiisi ma ala tankisi ma ci firi lépp loo xam ne a cheikhu cheikhul xaaj malik mubrim aji xereñee woon la bii ci loola ca na mu ko ràbbee woon fasante ko ba mu dëgër wa kasartum dammu ngeen maa loo xam ne yaasu dana jafe bii ci loola aljabru jàng ko mooy taxawalaat ko la ngeen fi yàq daal naqari naa defar lool tabarakallahu ñu taxaw noonu incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah tabarakallahu ne taxaataytum ka asatila min hawaakumu sabat kulla aqlin minkumu taalika alxamru sëriñu mag ñi nee na yéen a ngi jokkalante ay kaddu kaddu ya nag na ngeen koy jokkalante seen bànneexu bakkan dafa neex ci yéen ba mel ni kaasu sàngara ba mel ni kaasu sàngara ba ngeen di jokkalante ngeen naan ci nag ba man ni nga xam ne jàpp na seen xel lu leen neex rek ngeen di wax di yàq dere gor ñi ci penc mi moo tax mu na taataytum yéen a ngi jottalante kaasa tila kaas ba moom kaasu sàngara la min hawaakum yooyu tukkee na ci seen bànneexu bakkan rek wax ji neex ga mu neex ci yéen lay nurale loola nga xam ne sabat jàpp na kulla aqlin bépp xel minkum ci yéen taalikal xamr boobale sàngara jàpp na seen xel ba xamuleen lu wérul lu wérul jaxase rek di dem dégg nga waalisat kumu nafsul mudillatu walhawa ala ma bihi l irdaau lillahi wa zuxru nee seen bakkan yi daal ngeen di wéttalikoo te seen bakkan yi sànk na leen ak seen banneex yooyu ci walis ngeen di ut ngërmande yàlla dégguloo waa anisat kumu wéttali na leen a nafsu bakkan bi al mudillu al bay aji sànke wal hawa ak bànneex alaama bii ci la nga xam ne nekk na ca loola al irdaahu ak ngirmaande lillahi ñeel yàlla wa zuxru dégg nga maam ak ndaxanteef li nga xam ne ngirmaande yàlla nekk na ci ak yoolu yàlla bu ñu leen dencal pour bu ëllëg loolu yëpp seen banque bakkan fexe na ba xañ leen ko di leen wéttali yoo yoo xam ne yu doy dee doy de la yu ñàkk solo sax yoo xam ne da leen di tardeel nit ku am fayda yooyu waru ko tardeel fenn wa in kuntum fi xiilati lhadmi ma bana wa garrakum man dalla wanfasama al ajru dégg nga ko bu baax dégg nga nee na nag bu fekkee yéen seen yitte yéen nit ñi mooy jéema mabbu pexe yi ngeen di xëy ko gonto yépp di li ngeen di teg mooy jéema mabbu la nga xam ne Cheikhul ma Mali tabaxoon na ko fi yaakaar na mun ngeen kaa daaneel <laughs> dóoru ngeen nax ngeen seen bopp jàpp ngeen concal kuy daw de te nag wattuwul lu ngeen jëfoon ci lu baax dana yàqu ndax seen yi woowu yi nañ koy jël di ko delloo ña ngeen di tooñ wa in kuntum ndegem nekk ngeen fii xiilatil hadmi nekk ci pexam jéem a mabbu maa banaa la nga xam ne tabaxoon na ko moom kilifa gi wa garrakum nax na leen man dal la ka nga xam ne sànku na wan fa sama dagg na al ajru yool bi maanaam du ngeen am dara lu ngeen am lu ne ci nit ñi lay dellu kafaakum bida daa an dawiyan wa qaatian an silki matruudan fama rabihat tijiru nee na lii nag war na leen day sëkk mu nekk jàngoro joo xam ne jàngoro ju tëx tëx faju la ak dagg goo xam ne dagg ngeen ko ci aju gi ngeen aju woon ci Cheikhul Hadj Malick ñu nekk nag boobaa te booba yéen du ngeen am <clears throat> du ngeen bénéfice su ëllëg waaw du ngeen bénéfice de def leen ndànk de kafaakum doy na leen sëkk sëkk sëkk bisaa ci jikko ju ñaaw ji ngeen nekkee da an muy jàngoro dafa yéen jutta ba jaaxle ba médecin médecin benn médecin mënul leen dara tawaqaati an aji dagg ngeen ana silki waris rang gi mooy silsila bi mooy fiil gi ngeen jaaree woon ci Cheikhul Haaj Malik dagg na de matrudan mu nekk ñu ñuy dàq te boobaa bu fekkee Cheikhul Haaj Malik dakk na leen ngeen dagg ci tarixa bi fama rabiha kon du bénéfice attijru yaxantu gi ngeen doon yaxantu ci kaddu yooyu le ida almaru lam yurzaq alayhi muruatan ala diini fal ahmaalu min nahwihi xubru nee bu fekkee nit daal wërsëguluñ ko mbañ rus ci diine mbañam rusante rewu ko dara dara dara dara dara ah xamal na jëfam yëpp day mujj rek nekk nekk nekk poussière rek mooy waqadim naa ndax mbañ rus moo lay tere def yu bëri moo lay tere wax yu bëri bu fekkee nag wërsëg woowu amuloo wërsëgu mbañam rus ah lu la neex nga def kon yàgg ñëpp a yem rek ñëpp a ngi tanantee foofu di foog nga am looy jomb am looy bëgg am looy bañ moo tax góor gi ne idal mar u bu fekkee ne nit ki lam yurzaq xéewalee fu ko alayhi ci moom maru atum bañ rus ala diine ci diine ji xamal ne fal amalu jëfam yëpp xuburun poussière la rek min nahwihi bàyyi ko ci côté du mujj ci lil wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu haba mansura képp la mujj <coughs> dégg nga ko mangoog ne mu jar ah, wa man yakun yara amanata malikin walam yastaxi l mawla faqad xujira al xijr sëriñ yu mag ñi neen képp koo xam ne nee nga yaa ngi sàmmonte kóllëre gi nga amoon a Cheikhul Xaaj Malik te rusuloo yàlla ci li ngay wax ak li ngay def yow sam xel muuru na yow xaw ma kande waaye yow moom sam xel muuru wa man lam yakun képp koo xam ne nekkul yaraa di sàmmonteeg amaanata malikin kóllëre gi nga xam ne moom la jàppante woon ak Cheikhul Xaaj Malik walam yastaxi te yeresul almawla borom bi ah kooku fakat xujjira yiireef na nëbbeef na alxijra xelam googu de dégg nga mujarradul taatani biha lan yanaal allaha anna laka zufru nee di jëf nii jëf jëf nii rek te jëf ji amuloo ci jëf ci jublu ah loolu yàlla amu soxla moom kay da nga ciy jublu yàlla kese yàlla xam ne moom nga ci jublu leneen taxaw yàlla xam ne leneen nga ci taxaw moo tax mujarradu amalil jawaarixi jëfu cër yi kese kese kese kese kese joo xam ne amul lenn lu ci làqu taata nii boobu dana ci sonn bihaa ci moom moom nit ci jëf yooyu lan yanaal allaha du àgg ci yàlla mukk kon ana laka naka la la ñeele azufru ak gañe boobu kon jëf yi ngay jëf bu ko def mu jar du jëf-jëf kese te amul lu tax nga di ko jëf kooku wóorul ne jëf yoo xam ne yaa ngi koy jëf taata nga xam ne dana ci sonn di ko sonne waaye jëf yi mënul àgg ci yàlla ndax amul benn yéene bu ko lal farudda jimaaxan nafsi an sha'wi ghayyiha wa qad a'dara al mawla fa mal uzru nee sa màmmuk bakkan gii na nga ko delloosi jëlee ko ci mbewte gi nga xam ne ak jéggi daya gim nekk yàlla nag moom ah nangul na ngànt képp koo xam ne yaa ngi ci njuumte nga dem ba yëg ne yaa ngi ci njuumte ah tabaarakallaahu nga ñëw layi yàlla moom nangul bu fekkee yëg yaa nekkoon ci njuumte nga tuub mu balla waaye bu baal looy nag bu fekkee tuubuloo moo tax mu ne fa rudda dellool jimaaxan nafsi màmmu bakkan bi bakkan bi yaa ngi ko puus mi ngi lay puus lu la neex wax lu la neex def ansa yaka yiha walis lefam mbewti mi nga xam ne fi la nekk de waqad aadara ngantal na nag almawla yàlla ilayha jëm ci bakkan boobu mooy dogal na ay ngant kon fa mal udur ana lan ngay laaj bi maanaam ana lan mooy sa ngant rek fa bunyaanu haada shayqu usisa bi taqwa wa man yaxmihi minna lahu lhamdu wa shukru nee na Cheikhul Xaaj Mali lépp loo xam ne tabaxoon na ko fi defaroon ko fi lépp mi ngi ko fondement ci ragal yàlla képp kuy aar loolu nag di ko aar la Cheikhul Xaaj Mali di ko ci jàppale a ah ñun duñ def lu dul sant la ca gërëm la ci ñun Xaaj Mansour waaye keneen koo xam ne nag leneen moo la tax a jug ah man de say mbir man dama ci ay gàttañ lu man si moo tax mu ne fa bunyaanu hada cheikh tabaxu bile sëriñ te mooy Cheikhul Hadj lim fi fondement yépp liggéey ko fi senegal lépp lépp ussi sa fondement fi ne loolu bi tuqaa ci ragal yàlla wa man yax mi képp koo xam ne aar na ko minaa ci mun ak képp koo xam ne dana ko aar minaa ci ñun lahu ñeel na kooku di ko jéem a aar alhamdu ak cant ku mag lool moo cantuk làmmiñ wa sukru ak cantuk kol daañu ko ko defal ba mu yëg ne Euh, tabaarakallaahu mi ngi ñuy sàmmale li nga xam ne moom la fi góor gi bàyyi te mooy lim tabaxoon ci ragal yàlla nga koy sàmmale ci ragal yàlla kon boo ñun nga dimbale ne yadullahi taami anhu min kulli afatin fa asba maamunan yuxattu bihi lwisru neen nag yéen bu fekkee li leen ci war defu leen ko yàlla moom dana ko aaral boppam ba lépp luy xeetu njuumte lépp luy xeetu gàkk-gàkk lépp luy xeetu ayib ayib ku ko bëgg a dugal ci loxol euh, ci euh, liggéey Cheikhul Xaaj Malik watul yaa cay ayibee yaa cay sikkee kon def leen ndànk te boobaa kat hmm, tabaarakallah moo tax mu ne yaddullahi kàttanul yàlla de mooy loxol yàlla waaye xam nga niñ koy firee rek tax mi dana aar anhu ci liggéey Cheikhul Xaaj Malik min kulli aafatin ci bépp gàkk-gàkk baax tam fa asbaxa mujj na ma mun a nekk di lu ñu wóolu yu xattu nga xam ne def na séppi bi ci aar gi nga koy aaral al wisru diis diis yeeg bàkkaar yeeg yooyu tabaarakallaahu ñu taxaw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi maa ngi la nuyu di la ziyaarawaat di ñëwaat ak sëriñ mag ñi fi yemoon ak moom ci xasidaam googu di fa yaa ayuha almagruru qad laaciba addahru bi cumrika qad xataa faatama ci tiwaawanu kumu haadihi maxallu hidayatin wa xusne tilaafin laa yaliqu bihi lxujru nee na Tiwaawan daal palaasu jaareekaay yoon la palaasu jubeekaay la place àndandoo nekk benn la kon jaaduwul ci kenn koo xam ne ab jullit nga wala nit nga nga fa yëkkati wax mbóosa rek wax ju ñaaw tiwaawanukum seen tiwaawan jihaad yi bii maxallu hidayatin place gindikoo kaay la wa xusnu tilaafin ak rafetuk tafoo mooy benn tappoo laa yeeleeku jaaduwul alhujur waxi mbóosa rek caaxaan waxi niin wax ju salte bi hii ci tiwaawan de tii nanga ko fiy def nag tiwaawunukum hadihi mahallu istiqamatin kon ala fastaqimu misla man qablakum marru nee Tiwaawan ji daal place su jubeekaay la kon jéem leen a jub comme ñi leen fi jiitu woon nañu meloon ci njub jéem leen a mel noonu waay tiwaawunukum seen Tiwaawan haadi bii mahallu istiqamatin place su jubeekaay xocc la ala waawee fastaqimu jéem leen a jub misla man kom ñi nga xam ne marru romboon nañu xablakum la jiitu ngeen fi jaar yéen ak di fi agsi ñooñu nañ bëggewoon jub yitte woon ko yitte leen ko noona tiwaawunukum haadi mahallu taawunin ala albirri wa taqwa bihi yuxtawa nazru nee na tiwaawan gii dal palaasu jàppalante la ci lan ci topp yàlla ak ak mbaax waaw Tiwaawan daal loolu la xam-xamul leneen du lool de kon Tiwaawunukum seen Tiwaawan ji haadi bi ma mahallu taawunin mooy palaasu jàppalanteekaay la alal birri ci mbaax wa taqwa ak ragal yàlla nga xam ne yoxtawaa dees na làq anasru ndimbal bii ci Tiwaawan gii waaw kay soo ñëwee rek yàlla mën na laa dimbale li nga fi bëgg yëpp ko fi maxallu luktisaabin la mahallu taazubin kon fa addu ala ma xat atana bihil xibru nee na fii place fàggookaay yiw la place fàggookaay njubluwaay du place fanatisme ak farfarloog yooyu déedéet nee na matu ko kon jéem leen a mooy ŋànk bu baax a baax ci li nga xam ne fóori ji moom la ñu indiloon te mooy Seexul Xaaj Maalik maxalu tisaabin mooy place fàggookaay yiw la laa maxalu taazubin waaye nekkul place fanatisme farfarloo kon fa addu mooy leen ŋànk leen alaamaa ci la nga xam ne xad na indi nañu alxibru fóore ji bihi ci loola te mooy fu ñu alquran ak sunna jaarloo woon foofu la ñu cheikh rahaj mali daan jaarloo rek kon jéem leen a jàpp ci loola te bàyyi yenn yi matu ko naha fantaha ida kaana yaamuru muxlisan wa mutamiran yaa xabasa nahyu wal amru nee na Cheikhul Xaaj Maalik lépp lu mu tere da cee jiitu te da ka daan def nag sellal ko rag ngir ut ci yàlla bëgg ku ci ku ko tagg waaye ragalu ci ku ko xas de waaw ah, kay moo tax mu ne nahaa tere woon na fantahaa mu lu ci lam doon tere wantahaa mu daytalu ci lam doon tere iskaana ngir nekkoon na moom Cheikhul Xaaj Mali yaamuru daan digle la muy digle muxlisan mbir moom muy aji sellal la may digle rek te yàlla tax waaye mu tamit muy aji jëfandikoo wommatu ci la muy digle yaa xaba sa yaa yëgal ne xaba baax na za kii te mooy annax yu aji tere ji daan digle li yàlla tere wal amru ak aji santaane ji daan santaane li yàlla santaane yéen nag nii ngeen di jëflanteeg moom nii gisatu leen jëmm ji muy dox dem ak dikk nii ci kaw ngeen yaakaar ne yëgul li ngeen di def yéen a ngi ci erreur de falaa taxsabuuhu wala falaa taxsibuuhu mayitan fi darixihi huma shuhadaau l axyaau dammahumul xabru sëriñ yi mag nee na mu ne nag li ngeen di def yëpp dafa mel ni ku nekk ci oto vitre teintée moom ma nekk ci biir oto ba da leen di gis te yéen ñi nekk ci biti da leen ko gis kon li fi nekk yëpp Cheikhul Hadj Malick xam na ko de fala taxsabuhu bu leen ko fooge moom Seydul Hadj Malick mayitan muy aji faatu fi dara xixi ci bàmmeelam bi de déedéet ndax hum ñoom nit yàlla yi suhada way shahid lañu te comme way shahid lañu al ahya kon way shahid lañu rek way dund lañu kon ñu ngi jàkkaarloo ñun fànga li fi xew yëpp dara ump leen ci dana am ñun ciy waxaat nag waaye dund na ñëpp lañ ciy waxaat dammahum taf na leen alxabru bammeel ngeen yaakaar ne rek yëgul li xew kon na rafet wala yulhikum jamcu alxutaami fa innahu mada dahri laa yoxsa ala jaarihi alfaqru yéen nag nit ñi gis naa ne leen yitteel mooy dajale pañotum àdduna yitteel googu mu la yitteel faali wu ci ni ngeen koy amee nu ngeen ko mën a rek baax na donte da ngeen di wax lu dul dëgg donte da di wax njuumte jël fële taf yëngal fële yépp ngir mu àdduna rek mu ne loolu nag jëru ko wala yulxikum bu mu leen yitteel jamal xataa bi dajale poñatum àdduna fa innahu naka mu àdduna mala daxri diiru jamono daal la yox saa deeful ragal alfaqru ñàkk ala jaarihi ci ki nga xam ne moo dëkkaaleeg moom huwa seekul xaaj malik albahru mooy géej ga wal anhaaru ak ga wal anhaaru te dex gi fi janaa jana janaa janabaatihi nekk na ci côté am nee na mooy géej gi mooy dex gi waa léegi nag comme mooy géej gi dex gi nekk ci côté am is ka kon ku nekk ci wetam dana ragal mar déedéet a yax saa ndax dana ragal anhaar yi kat tabaarakallah mooy njaboot gi nga déggee ko noonu mu ne a yax saa ndax dana ragal a aji mar man kaane képp koo xam ne fii janbihil bahru waay ndax ku nekk ci wetu géej mën na mën na mar waay ahibbaaya hubbu dahra wal umru xaa'inun xasirun fa ma fiiha tisaaun wala xayru nee na samay soppe jortu leen ci jamono bii na dund gi day wara de day naxa de oh. ku ci wér nag dara méttiwu la dara jotu dara da yaakaar ne loolooy continuer waaye du continuer de gàtt na te bala ngaa xam ne adduna gàtt soo nekkee ci ay situation ba génn ci situation situation yi na muy gàttee soo koy fàttaliku adduna lépp noonu la ba nga nekkee gone soo koy fàttaliku diggante ba nga nekk gone dafa gàtt nga nekkee école wala daara diggante ba boo demee ba mag da ngay gis ne diggante bu gàtt la lépp noonu la nag jamono boo ciy dund nag loo ciy dund ci jamono booba période booba la nga koy dund sa tolloo loolu da nga yaakaar ni lii du mës a jeex waaye bu jeexee nga xam ne ndeke da jeex na ahibba yéen may soppe hubbu fooge leen addahra jamono te wal umru dund bi xaa inun aji wara la de xasirun aji gàtt de fu maa fii haddir muy nekk ci adduna bi ittisaaun yaatu yaatu gu jar def naka sud noona wala xayru du caagee nag yiw kon wa xallu sabila aljahilina bi rabbihim fa baada nuzuli zikri laysa lahum udru nee na ñi nga xam ne dañu réer bàyyi leen leen ak seen borom rek ndax moom gannaaw ba alquran wàccee moom lay amatu fa ndax kenn du dem ci kanam naan yàlla yàlla xaw ma ko woon yëgee wu ma ko woon ni foogee wu ma ko woon ni damaa defoon ne ah déedéet lay amul foofu de kon waxal lu feexal leen sabilal jaahiliin yoonu ñi nga xam ne dañoo sànko bàyyi leen leen ak bi rabbihim de ndax fa baada nuzuli zikri gannaaw wàccuk alquran da laysa lahum déet muy ñeel ñooñu nga xam ne dañu sànku udrun benn ngant wala benn lay boo xam ne war nañ ko mën a lay kanam borom bi subhanahu wa taala ida dabba min xawmin ilaykum adawatun fa firru ila rahmani yan dao saru na bu fekkee da ngaa nekk ak aw nit ñu jël jikko yu ñaaw wax ju ñaaw lu ne ñu toxalee ko ci ñoom di ko jëmale ci yow dawal delloo sa bopp ci yàlla dénk ko sa borom sa bopp mu dox sa diggante ak ñoom loolu rek la isa dabbandeeg mi ngi yukkat adawatun ak nooneel min xaw min bàyyi ko ci aw nit ilaykum jëm ci yéen ñi yiw ñi fa firru lalli leen daw fox leen ila rahmaani su ko defee yan dafa dana yan dafi dana jañ asarru aywa dégg nga ko ma ngoog walaw aqasu min kal qalaasima fasbiru maayatu mawlaana bihal izzu wal wafru nee na doonte ñooñu di la tooñ di nonoog yow dañoo jël ci lu toll nii ci yow wew lu toll nii lelleti wee nee na tabaarakallahu muñul rek te ànd ak yàlla te xam ne ànd ak yàlla ci la lépp ci la ne dégg nga moo tax mu ne wala akasu bu ñu jëloon ma lu tolloog ay lelleti wee lu tuutee nii wi lelleti wee min ka ci yow tooñ la ko ay ca fas biru muñ leen ndax maayatu maulana àndaaleeg sunu borom mooy ndimbalam biha nekk na ci àndaaleeg ndimbalam googa al izzu tedd ngay adduna wal wafru ak lëwal goo xam ne nekk na ci lëway xéwal yéen nag fala taslimu abdan wala taaqiru aqan fa mal maru yadri ma bihi yutlau lfajru allahu akbar nee na bul tooñ benn jaam ci jaam ñi bul xeeb menn mbokk ci mbokk yi ndax nag comme guddi la ñu nekk te bët setegul bul xam lu fajar di fenke adduna nag weeru koor la feeg jant sowul euh, juubu du wees loolu wala fi wax kon bu fekkoon ne nit ñi déggee nañu ko noonu yaakaar naa ne njuumte yi nit ñi nekkee xeeb seen morom ye xeeb moom daal ma ngoog kenn mënul wax lépp wala taslim bu leen tooñ abdan benn jaam ci jaam yàlla yi wala taakir bu leen aqan menn mbokk ndax fa mal mar u déet si yadri muy xam maa yutulaw ana lan lay fenkee alfajru bi de fajar si lan lay fenkaaleeg moom mooy suba kom xamul fi lan lay teere jeeg fu muy mujj aljana jëm ak sawara ah der na def ndànk wa iyaakumul aqwaala wal qiila wal mira fa ma ahadun yarda fi dalika al barr nee wa iyaakum maa ngi leen di wattandiku loo al aqwaala nee nañu nee nañu wa qiila ak neef na wal mira ak werante kooku na ngeen ko moytu dégg na ak yaakaar na def naa war naa fa ma ahadun amul kenn ko xam ne yardaahu dina ko gërëm albarru yàlla fi zalika ci loolu mooy yàlla du gërëm kenn ci xiila kaala kon nu ngeen di def mu ne sillu silu qaati an lillahi waafu wa man afa wa aslaha min fadlil mubini lahul ajru comme ni ko alxuraan waxee loolu def sanru lextibaas rek loolu la junj foofu nee na silu jokk leen qaati an aji dagg mbokk lillahi ngir yàlla képp ku dagg seen diggante jokk leen ko waaye waafu baale leen te waman afa képp ku baale mën a ba pare baale waas laxa mu yéwénal defar ba mu baax lépp lu waroon a yàq mu fexe mu rafet kooku moom ah lahu ñeel na ko al ajru ab yool min fadlil mubini bàyyi ko ci ngënalul yàlla mi nga xam ne mooy aji leeral ji angal nee na wala tasxabu man laysa yunxidu xaaluhu wa laysa lahu fi llahi tayin wala nasru nee nit nag soo ma ba di ko fréquenté mbaa ngay ànd ak moom na fekk na koo xam ne toujours toogam waxam jëfam léppam yàlla nga ciy déggee waaye koo xam ne bu waxee doo ci déggee yàlla su jëfee doo ci déggee yàlla kooku da lay tardeel rek wala tasxabu bu leen àndaaleeg man képp koo xam ne lay sa yun xidu déet mu leen di buurloo xaaluhu melokaanam di leen jëme ci yàlla te walay sa lahu déet mu ko ñeel fillaahi ci yàlla tayyun amul ci lenn lu ci ciy def tayyi mooy lu mu ciy taxañ wala nasalu caagin lenn lu mu ciy tasaare kooku moom mu na ngeen ko mooy tundiku alaykum bi xusni sabri fi kulli azmunin fa inna milaaka al amri i sabru nee na aleykum maa ngi leen di dénk bi xusni sabri ci rafetuk muñ fi kulli azmunin ci bépp jamono na ngeen di fexe di muñ te yàlla tax ndax fa inna milaakal amri naka li nga xam ne moo téye mbir yëpp moom mbir yëpp ajmaañ mboole seen mbir yëpp li leen téye téye leen moo di muñ kon muñ moom tabaarakallahu mooy sottil yëpp wa suunu ala haadil wali xarimahu xarimahu dégg nga bi xatki harimi cheyqi yan yan fasimu zahra dégg ko bu baax dégg ko moo tax mu ne wasunu ñoŋal leen ala haadal wali ci bile wali xarimu xormaam xorumam te mooy ormal ko respecté ko ak lim fi bàyyi njaboot gi lépp ndax bi hakkil xarimi cheikhi nekk na ci xotti ormaayi xurumu sëriñ bi yan fasi mu day dagg azahru ginnaaw mooy nit da ci alkoor kon ñàkk teggin gi def leen ci ndànk ci barabam bi wa fi kulli faydin yaaqi zabadun yura wara assayli mulqa baadama albaxru nee na wa fi kulli faydin nekk na ci bépp bëbb bépp ak wala yaaqi yow sama mbokk nekk na ca zabadun fuurit neen lépp loo gis rek day am fuurit de yura des na ko gis nag moom fuurit moomu wara assayli gannaaw ba yol ndemet demee ba pare mulqal mu nekk lu ñu sànni baadama asbada gannaaw ba nga xamee ne fuur na albaxru géej géej gi toujours saa bu bëbbee maanaam boo demee ci géej wala yàlla géej taw taw bu bëri da nga gis loolu ñuy wax fuurit meeg bu wal yol na weeg wala waame yu bëree da nga gis ñuy wax fuurit meeg lu dul dëgg daal lépp day féete kaw ba nga yaakaar ne loolu rek kay dëgg waaye yàgg-yàgg day dem de comme ni ko alxuraan waxee rek loolu la junj foofu kon lu dul dëgg itam du yàgg waaye nasaxtukum lillahi maa leen di laaye biir rek te yàlla tax xaw mi yéen sama mbokki bopp yi nasihatan ak laaye biir laa yaqbaluha dana ka nangu man képp koo xam ne laysa fi qalbi dir muy nekk ci xolam bi kibrun tokk tokk rëy julli gën jaaselli julli yàlla nag ak sëlmalam alal badri yàlla nekk ci weer wi mooy rasulillahi wal asxaabi ma garrada fiyeg mi nge way alxumuru dégg nga maam picc tabaarakallaahu téere boobu foofu la yem xam nga xasida boobu foofu la yem wa aaxiru alhamdulillahi rabbil alamin